Cela dit, vous savez, ces derniers temps, nous avons assisté donc à des sorties tous azimuts, comme si c'était synchronisé de soi-disant marabouts intellectuels et même des politiciens. Des sorties dirigées contre le président Macky Sall et son gouvernement. Euh, c'est pour cela que nous avons souhaité vous rencontrer aujourd'hui, nous entretenir avec vous pour vous donner donc la position en fait du département de Thiès par rapport à ces comportements regrettables. Et je voudrais avant de commencer donc le travail vous dire que ce point de presse, si vous voulez, on en fait une conférence de presse bien entendu, est fait sous la bénédiction donc du coordinateur départemental, M. Augustin Tin, qui nous a suggéré donc de venir aujourd'hui. Vous avez bien pu voir que pratiquement au niveau de chaque localité, il y a un représentant solennellement remercier en tout cas tous les camarades de parti, les frères, qui ont bien voulu faire ce déplacement pour nous honorer en tout cas de leur présence. C'est donc sous l'instigation du coordinateur départemental que nous avons tenu en tout cas à faire ce point de presse pour pouvoir échanger avec vous et donner la position du département sur donc ces comportements. Je vous proposerai donc dans un premier temps de lire le texte liminaire et mon ami et de parti donc euh, Lamine Dramé après faire le résumé en wolof et à la suite de ça nous passerons donc rapidement à la réponse des questions que vous aurez bien voudrez bien nous poser mesdames messieurs les journalistes cher camarades de parti nous sommes à la croisée des chemins le président Macky Sall a engagé notre pays sur la voie irréversible de l'émergence sans conteste le PSE je veux dire le plan Sénégal émergent reste et demeure le meilleur modèle de politique d'accès au développement depuis les indépendances. Son articulation avec la décentralisation économique à travers l'acte 3 de la décentralisation qui organise le pays en territoire viable et compétitif à travers des pôles de développement est l'œuvre d'un génie ingénieur. Ajouté à cela, la mise en œuvre du PUDC qui permet de lutter contre les disparités profondes entre les villes et le milieu rural en dotant ces derniers de services sociaux de base moderne. Telle est la vision du président Macky Sall. Avant lui, il faut le préciser, personne, je dis bien, personne ne l'a fait. Que dire alors des saboteurs, ces apprentis sorciers, soi-disant intellectuels, mais qui au fait ne sont que des marchands d'illusions ces mercenaires de la plume à la solde d'intérêts inavoués et qui cherchent inlassablement à jeter le discrédit sur les visibles actions du président Macky Sall, nous les connaissons bien, ces revenants. Malik Ndiaye et Moubarak Lo étaient déjà morts et enterrés sous Wad. Le président Macky Sall les a ressuscités, il les a dépoussiérés, nourris et habillé avant de leur donner matière à débattre. Car contrairement au président Macky Sall, qui a une vision pour le développement de son pays, ces deux individus n'ont jamais rien apporté de constructif à la bonne marche du pays. Qu'on nous cite une seule, et je dis bien une seule publication, utile de ces deux hableurs. Oui, ils sont forts lorsqu'il s'agit de vilipender, tels des commères, des mégères, ces deux-là. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils abaissent le niveau du débat dans ce pays. Égoïstes, ils le sont. Vantards, ils s'en proclament. Mais productifs, ils ne le sont jamais. Peut-on arrêter la mer avec ses bras Non. Peut-on empêcher à ces oiseaux de mauvais augure de vilipender ce dans les discrétions de la République Non. Tel est leur sort. Sinon, leur existence n'aurait point de sens. Si le président Macky Sall est un homme d'État, de consensus à la trajectoire ascendante, Malik et Moubarak sont des hommes de contradiction, habitués des bas caniveaux. Jamais ils ne sauront se hisser à la hauteur du président Macky Sall. Et quant aux autres, je voudrais nommer Hassan Mbake et Modou Bousso Dieng. Leur attitude nous rappelle ce passage de la Bible je cite, Ils viennent à vous en vêtements de, de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Qu'ont-ils appris des bas-mondes Qu'ont-ils appris des enseignements de Serine Touba N'est-ce pas lui qui disait De l'amour de ce bas-monde découle l'orgueil, la fatuité, le mensonge, la calomnie, la méchanceté, la jalousie, la haine. Fin de citation. Et c'est le vénéreux Serigne Touba, dans son ouvrage intitulé Le viatique des adolescents, s'adressant toujours à cette frange sensible, il dira au vers 12, 13 et 14, vous les adolescents, ne vous préoccupez que de droiture, évertuez-vous à la recherche du savoir, efforcez-vous d'assimiler et de réviser vos leçons. Fuyez les assemblées qui entraînent la perdition. Attachez-vous à quelqu'un qui ne cesse d'adorer son Seigneur. afin qu'il vous guide dans sa voie droite. Hassan et Modou trahi les enseignements du Cheikh. Jamais Serine Touba ne saurait être fier de leur comportement. Même 6000 ans de pénitence à Khelkom ne saurait laver le déshonneur qu'ils ont fait à la noblesse du titre Mbake Mbake. Quant à Idrissa Seck, ses prétentions sont inversement proportionnelles à ses aptitudes. Voilà un monsieur qui est borné par sa nature et infini dans ses vœux. Tous ses rêves sont hors de portée pour lui. Habitué des scandales et des coups foirés, sa dernière trouvaille, c'est de se cacher derrière des chasseurs de primes pour tenter de jeter le discrédit sur l'œuvre gigantesque du président Macky Sall. Sa haine pour le président est d'autant plus féroce que partout où il a échoué, le président réussit avec brio. À chaque homme son destin. Celui de Idrissa Seck, c'est la chute libre. Celui du président Macky Sall, c'est l'ascension fulgurante. Les deux courbes ne se rencontreront jamais. Mais il est temps que monsieur sec se rende compte qu'il s'est trompé d'époque. Dépasser l'ère où la politique rythmée avec verbiage, calomnie et invective, c'est un débat d'idées pour un Sénégal prospère que nous l'interpellons, au lieu d'installer ce pays dans une campagne électorale permanente. S'il la vraiment envie de développer ce pays, qu'il commence par ce département de Thiès, à la tête duquel il a été porté, et dont il a, il a fini de faire ses preuves par son absentéisme et des pratiques sur lesquelles nous aurons certainement l'occasion de revenir. Je voudrais terminer en lui rappelant que la compétence ne se décrète pas. Elle se démontre toujours à travers des actions et des réalisations concrètes. Bien évidemment, faudrait-il avoir l'humilité nécessaire pour pouvoir la comprendre. Et Idrissa Seck, hélas, ne fait pas partie de cela que notre Seigneur à créé avec cette vertu ô combien admirée par le peuple sénégalais qui est l'humilité. Il ne le comprendra jamais et malheureusement ne s'amendera jamais. Peut-être comprendra-t-il un jour que ce qu'il aurait dû faire en 2007, Macky Sall l'a fait en 2012. Et comme nous l'avons dit plus tôt, à chacun son destin. Tel est en tout cas le message que nous avons voulu partager avec vous et je voudrais donc vous remercier pour votre aimable attention merci. Euh, fii suñu réew mi toll mu ngi àgg ci daanaka njomboxtal président Macky Sall jëme réew mi ci yoon woo xamante ni li ñuy wax la voie de l'émergence mooy yoonu. suqaliku ñu tëgg ko ci li mu woowee plan Sénégal émergent ci PSE bi nga xamante ni màndarga joxalin la ci wàllu politique boo xamante dina tax ñépp ñi nekk ci réew mi ci wàllu koom Sénégal jaaree fa suqaliku ba ba faw loolu suñu ko jëlee lëkkale ko ak xalaatam ci décentralisation maanaam wàccee sañ-sañ yi ak man mani yi ci askan bi ci suuf te mu jëm ci wàllu koom soo ko boolee day nekk xalaat boo xamante ni mucc na ayib ba amul ba amul fu mu yem buñ ci yokkee jamono yi paase xalaat bi président am ci plan boobu ñu tëral ñu koy wax PUDC jëmale ko ci waa kaw gi ngir xeex lépp loo xamante ni ñàkk yemale la jëm ci réewu taax yi ak àll bi ngir fexe ba waa àll bi lépp lu jumtukaay yoo xamante ni dina ne mën a dimbali si seen dundin mu fexe ba yokk ko defar ko ci façon boo xamante façon bu mucc ayib la loolu yëpp suñu ko boolee day wane ne gis-gis bi président am gis-gis boobu kenn mosu koo am kenn mosu koo xalaat avant moom mais suñu méngalee loolu ak ay nit yoo xamante ni seen taxawaay ci réew mi daanaka mooy lu jóg ñu sotti ci suuf di saboter ñu yore ñu am gis-gis wala xalaat boo xamante ni ñoom rek lay intéressé te la ca tax a jóg mooy fexe ba ñoom nu ñuy dundee ñu nekkoon ay nit ñoo xamante ni daanaka dañoo woon muy mu Barak Lô ak Malick Ndiaye ci jamonoy Abdoulaye Wade Macky Sall génn leen ca pax ca kàmb gañ nekkoon euh, dekkal leen def leen ba ñu nekkaat ay nit sang leen solal leen leel leel leen jox leen ñu naan. ñooñu ñooy dem di topp ci ginnaaw président ci jamono bi nga xam moom mu ngi def yooyu yëpp di ko ŋàññ ak di ko di ko xeex te ñaar ñooñu daanaka seen diggante Macky Sall yàlla ak yàlla la ndax ñoom ci fànn bi ñu nekk kii di taskatu xibaar kenn di ne ab économiste la amul lenn loo xamante ne lu ñuy bind la di ko jëmmal te tey Sénégal mën ne lii ñu def wala lii ñu bind lu mu ci ayib la saa suñu waxee c'est pour delloosiwaat réew mi ci ay teesante yoo xamante ni amul benn njariñ pour suñu réew mi donc ñoom la leen tax a jóg mooy ay nit ñu baaxul lañu ay nit ñu tekkiwul dara lañu euh, seen bopp moom moo leen ñor réew mi ñoru leen kon ñooñu mënuñu leen a euh, mënuñu leen a yemal ak président te fii nga xamante ni fa la président jëmale réew mi mu ngi mel ne mu doon dem nga bëgg a téye géej gi nga bëgg a téye ginnaax yi ak sa ak sa ak say loxo loolu ñoom. daañ ci daañ ci sonn mais comme que ay euh, ay ay nit ñu yu yu yu yu tekkiwul dara lañu daanaka du tee président moom dox dox aw yoonam président Macky Sall homme d'état loolu wane na ko ci depuis bi mu fi nekkee bi mu njëkkee nekk ministre ba bi muy nekk président lépp lu mu mës yëkkati loolu la mu am yoon wu ko yàlla su suñu buur yàlla euh, xalal mu yoon woo xam mu yoon mucc ayib la kon kenn du ko méngale ak ñaar ñooñu nga xamante nii Euh, ci liñ leen xamee mooy ay wax yoo xamante ni ay waxu ay waxu kasaw kasaw la euh, suñ jógee ci ñaar ñooñu su ñëwee ci ñi wooye sëñ Assane Mbacké ak sëñ bu Boussa Dieng euh, seen taxawaay ci réew mi dafa waroo lool ak njàngale bi nga xamante ni moom la sëñ Touba jàngale jàngal ka ay ndawam dafa leen yéen li may sàkku ci yéen li ñuy sàkku ci yéen mooy lépp lu ngeen def moo uti leen yéen ndaw ñi xam-xam daw ngeen dem yi ngeen dem nafar yi la ngeen jàng moytu leen yoonu yoon leen di sànq taxaw leen ngeen ngeen pasteefu ci lépp loo xamante ni dafay dafa leen jegale seen borom te ngeen moytu ay naafeq yoo xamante ni dañ leen di lor ak mbooloo moo xam ne mbooloom loraange la suñu xoolee loolu nga xam moom la sëñ bi jàngale sëñ mu mag bi ñu xool taxawaayu sëñ Assane ak sëñ Moodu dañuy gis ne daanaka ñoom wor nañu njàngalem seen waajur woowu di sëriñ ak seen gidd di sëriñ Touba su leen doon yóbbu ca tool ya xelkom di leen tarbiyu juróom benn junniy at du tax ñoom loolu nga xamante ni jàpp nañ ak tooñeel la jëm ci mbàkke jëm ci mbàkke mbàkke yi ak tooñeel la jëm ci yoonu murit loolu man koo loolu mën koo fay suñu ñëwee ci kii di sa Seck ñépp xam ko ci bëgg-bëggam li ñuy wax li tool di wax prétention mu wóor ko ne moom lakk ka ñor la ma doon wax ne man fu ma nekk un lay nekk mu la ka ñor di nekk président de la république mu xeex ko mënu ko am te mu wóor ko ne loolu muy xeex joco jot su ko boolee ak lii nga xam moom mooy taxawaayam ko xool war ne loolu amul amul njariñ Idrissa Seck jàpp na ne moom moo gën a ñor nit ñi te tey boo koy classé ci Sénégal bokk na ci ñi fi gën a néew wala yées yées ay xalaat ca lañ ko xam mooy ay tojaange ci ay kàddoom ay tojaange ci ay jëfam di daw utali alal joo xamante ni dara baaxu ci loolu nag ni mu koy defee mooy fexe lëndëmal xel yi pour que mu wone beneen xar kanamu président Macky Sall boo xamante ni waroon na lool ak xar kanamam fépp fu mu mës a jaar dafa lajj fu mu mës a jaar lajj fa. président da cee génn ci anam bu mucc ayib ba mu nekkee premier ministre ba ko Macky Sall wuutoo fépp fu mu mës a jaar ba mu nekkee maire Macky Sall nekk maire Fatick fu ñu mës a jaar ñoom ñaar ñu natt seeni i jëf xam na ne ñoom ñaar yàlla ak yàlla yàlla nag su bindee nit ku nekk dafay bind ak sa ak sa destin ak sa ak sa jaar-jaar ne lii laa la bindee fii ngay jaar yàlla moo def Idrissa Seck nekk ja nekkoon ca jamono boo xamante ni bi fi ma Abdoulaye Wade nekkee mu jóge fa di xalangu ci même jamono boobu Macky Sall di di jóg loolu nag jëfu yàlla la te incha allah loolu yàllaa ko def ñoom ñaar bu ñu mus a tase parce que suuf la jëm kële kële kaw la jëm waaye nag Idriss Seck war naa xam ne jamono bi ñu nekk waroon na lool ak ba muy nax sénégalais yi ci kaddu ci neex kàddu ak ci euh, détourné alxuraan. jëmale ko moom ca nam ko ca nam ko bëggee nit ñi li ñuy xaar léegi mooy ñuy wax wax yoo xamante ni ay wax yu wax yu yuy suqali Sénégal la débat boo xamante ni waxtaan woo xamante ni waxtaanu ko la di xàll ay yoon yoo xamante ni bu ñu fa jaaree Sénégal mën naa mën naa jëm kanam moom bu fekkante ne jàpp na ne bëgg na liggéey senegal ca lañ koy woo mooy nga tàmbalee fii ci département Thiès nga xam fii la ko waa Thiès wóoloo fal ko ginnaaw bañ ko wóoloo faloon ko maire tey ba mu doxalee at ak ay weer la ñu mën a jàpp mooy ñu jàngat ne la mu wane mooy ñàkk teewam ci Thiès ñàkk a nawloo waa cees comme na mu leen waa département Thiès comme ni mu ñàkkoon a nawloo waa commune Thiès la mu wane mooy ak tëleem te tële gi toujours day làqu ci ginnaaw ña topp ci moom dénk leen cër bi bu ñu waxee ñu ne ñoo ñoo def waaye Idriss Seck deful waaye moom mooy moom mooy ndey jimbili ji kon na commencé foofu moom foofu lañ koy xaar dañoo bëggoon a jeexal kàddu gi wax Idriss Seck ne man-man kenn du ko wane kenn du ko wax dañ koy jëf ni ñu gis comme mën a mën a euh, da fekk ne nit ñi dañ yow la doone man compétent naa da ngay jëf nit ñi ne kii de wane na compétence ci li muy def dangay def ay jëf yu jëfu yoo xamante ni nit ñi mën a cee mën nañ cee teg seen bët waaye li nga xam moom moo manque Idrissa Seck mooy li nga xam ne yàlla dañu ko mooñaaleel ci ay valeur yu am solo mooy nit ki nga oyof nit ki li nga xamante ne moom la yàlla gën a sopp ci nit mooy woyof la naan tey boo doon am musiba doon am lépp lu diis sa da nga ko fay bàyyi et yàlla moom la mu gërëm mooy oyof loolu foofu la ñu doon xaar Idrissa Seck foofu la moyee la yàlla santaane woon foofu la moyee la nga xam ne moom mooy dëxañu ci suñu aada moom moo dëxañu suñu cosaan moom mooy dëxañu suñu ñëpp ñi nga xamante ni tey ay nit lañu te ñun ñu leen di roy euh, sëñ Touba ca la bokk sëñ Maam El Hadj Malick la bokk bépp kilifa yi diine Sénégal képp koo ci gis la mu wone donte dafa fees del mooy ak oyof mais aussi doxewuñu man-man waxewuñu ko oyof la ñu wone foofu la Idriss Seck raté euh, lëkkaleem la ko boole woon ak Sénégal nga xam foofu la mënoon amay chance donc moom ñu ngi koy woo ci loolu nga xam ne moom mooy njàngale mag ñi euh, mu jéem a góorgóorlu te bàyyi ma président Macky Sall ndax moom la mu waroon def ca 2000 2017 2007 nga xam ne raté na ko loolu président def ca 2012 réussir ko te loolu yàlla moom moo ko def kon boog ñu leen di gërëm di leen sant te di leen jox dig daje ci jamono ji